Euh, ñu del siwaat ci politique bi ndax dëgg la euh, monsieur le président de la république dafa am médiation euh, ku ko initié ak ku mu ci munti doon sa diggante ak son ko ah loolu de yëguma ko. Hmm. médiation. yëguma ko daal dialogue laa woote. dialogue nag moom ñëpp lañ ci woow. médiation moom yëguma ko ñàkkul nag ñu bëgg ay ay diisoo wala bëgg ay ay waxtaan. mais hmm. médiation amu amul ñu koy dox ci suuf.